asalaamaaleykum mbokk internetu Sénégal mbégteeg bànneex la ñu am saa di leen di dalal ci seen émission seen débat fii ci Sénégal comme ni ñu koy defee saa ne tey nag ñoom am mbégte di dalal euh, ci sunu plateau Awa Abdoul euh, Abdoul Ba nekk responsable parti démocratique sénégalais en même temps euh, coordonnatrice de la coalition wàllu Sénégal au niveau de la commune de de Plateau. moom la ñuy fas yéene àndal tey ci waxtaan bi jéem a saytu lépp lu aju ci actualité politique rawatina fii ci Sénégal Awa Abdoul Ba ñu ngi lay euh, maa ngi lay fay biirama maa ngi nuyu aussi euh, kër gi yëpp di remercier aussi Sénégo pour invitation bi di nuyu tous les internautes yu ñuy seetaan. très bien Awa xam nga. le 12 septembre bii di ñëw la ñu war a installé li nga xamante ne moom mooy euh, député yi ñu fal gannaaw bi ñu amalee élection législative bi muy euh, la quatorzième législative ngeen am ci portion député ci coalition bi ngeen nekk mooy ko intercoalition wàllu Yewwi Askan bi nga fare ci wàllu euh, wàllu Sénégal. Mhm. alors ban jàngat nga am ci quatorzième législative boobu nga xamante ne ñu ngi ko war a installé le 12 bii di ñëw le 12 septembre. Euh, waaw en fait démb la ñu yëg nii que defe naa ils ont retenu le 12 septembre pour l'installation ah mu nekk loo xam ni nag euh, defe naa ñëpp ñu ngi koy xaar euh, je pense que cette fois si cette législature-là c'est c'est une législature historique. en quoi en quoi c'est historique. c'est historique parce que euh, c'est la première fois au Sénégal defe opposition bi. am taxawaay bi opposition nar a am euh, en septembre dans l'Assemblée nationale parce que soo gisee Assemblée nationale ñu nekk presque ñu nekk à égalité avec euh, le parti la coalition au pouvoir euh, opposition bi nekk am 80 députés euh, euh, pouvoir bi am 82 defe naa députés suñ ci yokkul euh, bien entendu. non mais da ko war a yokk 83 la actuellement. waaw léegi suñu defee même 83 ñun ñu nekk à 80 mën nañ ñun aussi boole ci ñaar ñooñu euh, boole ci les deux autres mooy euh, Pape Djibril Fall ak Thierno Alassane Sall defe naa mën nañ leen féetale ci opposition bi. bokkuñu ci intercoalition bi. aussi jar na bàyyi xel waaw parce que intercoalition bi opposition la mais ñeneen ñi aussi opposition lañu il faut ñu nangul leen loolu. c'est des opposants ils sont libres de choisir fan la ñu fan la ñu seen taxawaay ci biir assemblée nationale dañu gis seen bopp euh, en dehors de des groupes de la grande de l'intercoalition mais c'est des opposants donc man damay considérer tey opposition ñu ngi à 82 suñu waxee pouvoir bi nekk à 83 loolu nag c'est historique defe naa loolu jarul sax ma koy expliquer parce que xam naa daal dara du yomb ci assemblée bii di ñëw hmm, ça va durer malheureusement ay une année balaa présidentielle bi di jot mais déjà une année avant 2024 rek defe naa assemblée bi war na war na vraiment susciter beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de d'intérêt pour les sénégalais sénégalais yi teg nañu seen yaakaar ci assemblée bi parce que assemblée bu mel ni mësul am. ndax dina yomb aussi ci cadre liggéey bi quand on que. majorité bi li mu bëggoon tey jii nii maanaam coalition de la mouvance noonu laa ko mën a waxee sa la mouvance présidentielle. Mhm. li ñu bëggoon tey rek mooy am li nga xamante ne moom mooy une majorité absolue. Mhm. am ku bàyyee ko ci yéen nekkoon ci opposition bi tax sa ba ñenn ñi naan ay opposition moo fi am mooy Pape Diop dem def ralliement jox leen majorité boobu nga xamante ne quoi qu'on puisse dire c'est une majorité précaire mais quand même mën na poser ci balance bi e que tamit côté boobu mënuñu jàpp ne ay opposition fi am ñi nekk noonu la liggéey. boo jëlee kaw Pape Diourel Fall jël nga xamante ne moom mooy Thierno Alassane Sall kee dem fekk ñale est-ce que du ay opposition au lieu de benn mais loolu moo gën a loolu moo dàq ci démocratie démocratie dafa war a am ay opposition parce que ku nekk opposition dafa war a nekk euh, pluriel waruñu nekk ñun ñëpp am même gis gis-gis am même non c'est bon que mu am benn divergence benn euh, différence mais defe naa dans sur l'essentiel je pense qu'on va s'entendre on va s'entendre parce que defe naa li tax a jóg opposition bi c'est l'intérêt des Sénégalais te defe naa loolu moo euh, intercoalition bi ak ñi ak les yëpp c'est pareil ñoom ñëpp defe naa euh, Sénégalais yi ñoo leen tax a jóg donc je pense que euh, ñu mën a ànd bokk liggéey bi parce que soo xoolee ba xool tey opposition bi benn euh, les quatre vingt députés man wóor na ma am na loo xam ni ñu bañ ko waxtaanee sax dañuy bokk gis-gis parce que intéret wu Sénégal su taxawee ñoom ñëpp defe naa ñooy ànd te ce sera bien entendu au qua par cas au pas au cas par cas danañu mën a gis taxawaayu opposition bi suñu bëggee laal code électoral bi bëgg ci def loo xam ni nekkul pour l'intérêt de la démocratie au Sénégal je pense que opposition bi yëpp du ñu xool man fii laa bokk wala fii ñoom ñëpp danañu ànd bañ ko voté su nekkee aussi loo xam ni la pour l'intérêt du Sénégal defe naa opposition bi su nekkee Benno Bokk Yaakaar moo ko indi sax comme proposition de loi je pense que intercoalition bi ak toute l'opposition danañ ci ànd ak Benno Bokk Yaakaar su nekkee intérêt wu Sénégal. loolu nga wax seen leader ci dans la dans le cadre de de l'intercoalition muy Ousmane Sonko waxul loolu parce que moom jàpp na ne na ñu ne ci opposition bi. ba pare di traité ak nga xamante ne moom mooy euh, ñoom ñoo fare ci ci pouvoir bi. leader ou non euh, en fait je reprends un peu Ousmane Sonko c'est le leader. de l'intercoalition non non c'est pas la, le leader je... waaw c'est pas le leader de l'intercoalition le leader au niveau des législatives ñun suñu leader reste le maître Abdoulaye donc euh, intercoalition bi bu ñu ne leader je le précise en un peu c' parce que dans le cadre de l' moom la ñu gën a gis ci terrain bi ko xam ne taxaw na tey jii nii gunge ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci liste hmm. suppléants yi aussi bien au niveau de wàllu au niveau de. waaw nga ni dafa dafa xalaat ni am na ñoo xam ne dañu nekk ci opposition bi ñu nar a rejoindre pouvoir bi moom man loolu xalaatuma ko man xalaatuma que mille député yi ñu fal man ni ma gisee député yi ñu fal man gisuma ci koo xam ni. dana jóge ci intercoalition bi waxuma ñeneen de mais intercoalition bi gisuma ku fay jóge di dem di toppi benn mbokk yaakaar parce que nag c'est des c'est de c'est des personnes yoo xam ni déjà dañ leen tànn tànn dugal leen ci list yi te ils sont conscients ces ces députés là sont conscients de la lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules ñoom xam nañu tey Sénégal yëpp mi ngi leen di seetaan te defe naa nekkuñu aussi ay député yoo xam ni rek ils viennent de ne dañu bokk ci parti bokk ci coalition nara topp aussi la ligne de cette intercoalition mooy opposition l'opposition loolu mooy ligne intercoalition bi donc je pense que ñooñu man de xalaatuma ko. bu ñu taxawee tuuti ci cadre wàllu Sénégal bi fi teewal en tant que coordonnatrice am na ñu leen di jiwee ne tey jii nii résultat bi ngeen am ba am au moins vingt quatre députés au niveau de la quatorzième législature. Yewwi Askan Wi moo leen téere par la personne de Ousmane Sonko loolu man leeral nga ci mën a. loolu eh je pense qu'on a 27 députés. on a 27 députés au lieu de 24. bu ngeen au niveau de. voilà Yewwi non en fait loolu. loolu loolu c'est-à-dire ñoom am na ñu ñu jël ci ñun ñun ñu jël ci ñoom parce que list boo gis soo xoolee c'est une coalition départementale parce que nekk dafa garder listam nationale. coalition départe département bu nekk ci liste bi da nga ciy gis wàllu gis ci Yewwi donc. bi élection yi jeexee forcément ku nekk day dellu ci chapelam politique euh, ñun am na député yu ñu fal ci biir wàllu ñoo xam ni dañuy dellu ci waay yeew yi ñun aussi am na ñoo xam ni dañu falu ci bannière yeew yi mais dañuy dellu ci ñun loolu c'était loolu moom se ñu ne ñu ne ba tey ba sama question ñu ne yeew yi moo tiire wàllu Sénégal ndax wàllu daanaka ak le PDS demoon na ba commencé. kan moo wax loolu. Sénégalais ñoo koy wax loolu yaa ngi koy dégg am man dégguma ko parce ah, que yaa ngi koy dégg parce da ngay gis ne daanaka PDS c'était un parti entre guillemets man man man du ma basé wu ci nit ñi lu ñu wax parce que man déjà kenn waxuma ko man je pense sax man je pense que loolu kenn sañu ma ko wax parce que dama ci am ay réponses réponse xam nga lan xam nga pour ànd lan lu tax ànd balaa muy neex ku nekk xam boppam te loolu yàlla daf ko def ci local yi ñun dañu dem local ànd ak euh, Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul mbay ñoom la ñu àndal local yi PDS dem ñu am li ñu am ñu am 442 000 voix au niveau national avec huit départements yoo xam ni dañu fa forclos woon kon mën nañu jàpp ni que 38 départements la ñu dem. parce que y' a 46 départements sur 38 départements ñu am ci quarante 40 442 000 voix euh, mu jaaxal ñu bëri parce que ñu bëri dañu demoon defe woon PDS dee na. donc yaa ngi justement yaa ngi ñun ñuy xalaatee. non ñun ñu loolu dama lay wax local yi ñun ñu nekk ci biir PDS ñun xam nañu PDS parce que ñun dañuy dem di waxtaan ak sénégalais yi. ñun 442 000 voix boobu dañuy defe noonu dañ ko waroon ëpp dañu am lu ko ëpp vu accueil yu population yi nit ñu doon accueillir ci biir Sénégal bi yëpp ñu am 442 000 demal suñu bopp ñëw législative ànd ak Yewwi pour c'était une coalition départementale mooy ngeen ànd parce que ngeen àndul vous perdez le départements parce que on a un bloc qui est au pouvoir qui est Benno te élection législative raw gàddu la donc on a eu l'intelligence joxante loxo ànd pour mën a récupérer le maximum de département nangu ko ci benn Bokk Yaakaar loolu moo am ñu ñu génn ci am 470 et quelques voix léegi yé loolu man sénégalais yi laay laaj jàngat nañu jàngat yooyu résultat est-ce que lu ñu ànd ak yi moo tax ñu am position bi ñu am léegi wala est-ce que c'est pas pour l'instant plus ou moins le niveau du PDS en ce moment man boobu jàngat laay def que PDS ñu am 442 000 voix dama jàpp su ñu demoon sax ci huit yi mu ne 46 départements mën nañu dem ba vers les 500 kon ñun xam nañu balaa 2024 di ñëw xam nañu fii la ñu yem pour l'instant sans nos leaders sans notre secretaire général. parce que campagneul sans notre candidat. boo xam ne aussi ñëwul campagne donc ñeneen ñëpp partie yëpp am seen candidat ñëpp am ay leader yu leen campagnal ñun ñu demal suñu bopp ñun ñi man ma nekkoon candidat Dakar Plateau keneen ak keneen ñu dem seul am 442 000 voix loolu pour man day firnde di que PDS ah, lii am nañ ko war nañu lu continuer parce que présidentielle suñ ko bëggee gagné dañ ci war a yokk leneen te am nañu yaakaar ni tey suñu candidat su ñëwee loolu lu ñuy yaakaar am pour mën a gagner présidentielle bi loolu dañ koy am. en parlant du PDS mais kenn xëccuñu parce que on a le le le niveau de voix est plus ou moins similaire 400000 442000 au local en allant presque seul et 475000 ou 474000 voix en allant avec Yewwi donc. ñun dañu jàppalante rek. Yewwi ak Wallu bëggoon na sax gën a gën a yaatal point boobu mais def nga transition bi ba pare en parlant du PDS. parce que gis nañ ne temps yi passé maître Abdoulaye Wade nga xamante ne moom moo jiite le parti démocratique sénégalais di la personne morale ci communiqué mu ngi jéem a remobiliser waat les troupes ci njaayum quartier ak euh, côté UJT et le renouvellement instance yi le maire les étudiants consorts et tout ça yaagul dara également avec euh, la visite de vos nouveaux députés ki nga xamante ne moom mooy Karim Wade dégg nañ également ci presse bi ne woote na di galvaniser aussi les troupes comme di ko papa ji defee. dinañ waajal retour am. retour boobu ban lecture nga ci am parce que sénégalais yi à un moment donné commencé nañ di am pessimiste par rapport ak li amoon parce que daan nañ annoncé son retour nit ñi di ko waajal ci élection bu tedd élection 2019 mu jël ñëw à la limite. Mm-hmm. tey jii ñu ñëwaat ci scénario bu mel noonu est-ce loolu tamit. du ngeen ci am njàkkare tuuti jàpp ne sénégalais peut-être dañuy jàpp ne ñii dañuy naxanteeg nit ñi parce que mënoo doon candidat nekk doxa di remobiliser ay troupes doo ñëw kenn xamul kañ ngay ñëw. Mhm. waaw xam nga ñun parti bi PDS dafa nekk parti boo xam ni defe naa ci dans tous les partis qui son présent au Sénégal sañ naa wax parti boobu rek moo am fit dem élection seul doo doo gis ñeneen ñi dañuy dem en coalition PDS ragalul dem seul mais dañu am culture coalition mais ñun ku ñu bàyyi ñu dem seul. loolu déjà moo tax moo tax moo tax nag parce que dañuy souvent on compte beaucoup sur nos force soo gisee suñu secretaire général national galvaniser troupe yi wax leen jóg leen dem leen ci base yi. nañu recommencé jaay carte yi parce que carte yi dañ ko commencé woon jaay Covid bi ñëw ñu arrêté ko. dañ ko doon defee 2019. voilà parce que jaay carte bi voilà dañ ko dañ koy jaay pour euh, déjà day animer parti bi danañu xam ñaata nit ñoo ñu ñoo fas yéene votel PDS dafa am jàngat yu bëri ñu ci mën a def Covid bi tax ñu arrêté ko ñu reprendraat ko local yi ñëw ñu arrêté waat ko léegi ñu ko reprendre. fii ba. balaa élection présidentielle oh, di ñëw oh, excusez-moi est-ce que loolu tamit dina am njëriñ parce que 2019. non carte est-ce que fal na nit. non non dégg loolu pour organisation parti bi la. mais soo gisee euh, Karim aussi soo gisee euh, candidat wu Karim euh, defe naa démb la ma gis ci presse bi yëpp ñu ne wii Karim passé na un coup de fil wax na wolof man daf ma doon. reetaan lu c'est un responsable yee ko. daf ma doon reetaan lu pourquoi. parce que Karim Wade dafa mës a woote Karim Karim moo yore stratégie wu parti mais woote bi est-ce que doy na justement loolu loolu mooy xam nga ni ma yoree économie numérique ci parti bi nekk ci secretariat national Ablaye Wade yore économie numérique Abla euh, Karim Wade noonu la yoree stratégie du parti loolu la ñu bëre foofu la ñuy la ñuy euh, trompé mais lan mooy résultat donc moom luy nekk stratégie parti bi moom moo koy dox moo koy def Karim Wade woote na Karim Wade il faut mu woote Karim Wade il faut mu liggéey ak nit ñi kon dafay woote tout le temps peut-être peut-être. Euh, les gens ont communiqué oh, dessus mais mais ban exactement est que woote kese wala njaayum carte fal na nit parce que tey jii nii am na dicton bu koy wax la nature a horreur du vide 2019 defoon na ko ñëwul uh-huh. am na ay forces yu si affirmé wu si ñëwaat Mm-hmm. parce que ñu ngi terrain politique bi. Mm-hmm. di joué mais nekk à des milliers de kilomètres di woote naan da ngay nit ñi loolu ba njëriñ la am. no non justement non Karim am na apport bu considérable ci parti bi sur tous les plans comme comme aussi yeneen comme le secrétaire général national moom moo jiite parti bi. est-ce que appel yi moo jiite parti bi jusqu'à présent te mi ngi fii ci biir dakaar de temps en temps mu dem France mais mi ngi fii moom moo jiite parti bi moom mooy coordonner tout le parti moom mi ngi fii Sénégal parti bi mi ngi dox normalement structure yaa ngi fonctionner instance yaa ngi fonctionner normalement ñu ngi dem élection élection bu ñëw ñu ngi ciy dem non présidentielle passé <laughs> loolu waaw ñëwul mais loolu la. ba léegi leeragul ci bopp nit ñi. waaw mais problème ça mais loolu question wu. muy li ngay wax ni structure yaa ngi dox. ñu renouveler parti ngi dox xam nga tey mais loolu yëpp bu ñu koy def. nga tey pour mu dem ci magistrature suprême moo tax. xam nga xam nga tey li xew li xew assemblée nationale nga xam ni jàpp naa ni euh, président Macky Sall mënatu fa jàllale lu ko neex à partir de maintenant. gis nga li mu ko def li mu defoon en deux mille deux mille euh, je crois que deux mille dix sept deux mille dix neuf changé code électoral bi tere Karim Wade nekk candidat parce que Karim Wade. du tribunal bi moo ko tere ne tere nekk candidat li ñu dugal ci code électoral bi moo ko tere nekk candidat loolu dañ ko jaarale assemblée nationale. Euh, jàpp naa ni à partir de maintenant moo tax ma ni la combat politique c'est intéressant parce que dañ lay xeex nga continuer xeex dindi teggi liñ la tegoon Macky li mu tegoon en 2019 juste quelques mois avant avant la présidentielle mën nañu wax ay 6 mois ou 8 mois avant la présidentielle mu du changer code électoral bi dugal ci le mot électeur pour empêcher empêcher Karim Wade nekk candidat loolu defe naa mënatu ko def. ci assemblée bii di ñëw euh, te li mu lu mu teg ci assemblée bi yaakaar naa ni ñun aussi mën nañu jéem a dindi ko ci assemblée bi jaar ci assemblée bi dindi ko donc. moo tax ma ni gis nga assemblée bi bu mel nii su amoon en 2017 ah kon yu bëri jàll du jàll. Oh, mais ba léegi ñun ah, dañuy ah, continuer suñu combat politique. Ablaye Wade dafa wax daf ñu jàngal lenn sooy sooy dàqee sa sàcc dàqe ko rek lu daanu nga for. continuer di ko dàq. mais awa fu ñu nekk nii ci boobu situation la nekk ak Macky est-ce que yéen a ngi prendre en compte l'aspect est-ce que le temps joue en votre faveur parce que nous sommes à quelques 18 mois de la présidentielle. Mm-hmm. ba tey jii amul kenn ci yéen ko mun a taxaw ne Karim Wade ci date bii nii wala ci fourchette de temps bii nii. dina ñëw ci Sénégal est-ce que loolu tamit yéen a ngi loolu moom loolu mënuñu wax ci fourchette mooy Macky Sall a intérêt ubbi géewu politique bi. non dañu wax de dañu wax. déggoo ma de ma ni Macky ak benn Bokk Yaakaar ils ont intérêt à ouvrir le champ politique. buñ ko defulee parce que 2019 noonu lañ doon wax non non dégg nañ ci façon menace bu ne 2019 mais waaw mais kon kan lay jàkkaarloo. dàq na Khalifa Sall dàq na Karim Wade mi ngi mi ngi fexeel. en ce moment ñu ngi xool nan la ñuy nan la ñuy fa faagalee Sonko léegi kon Macky Sall xanaa day dem seul élection ñe ñe defe naa ñett ñoo ñooy ñooy ay adversaire am di léegi moom su réglé wul problème may ma rek su réglé wul problème wu Khalifa Sall wul problème wu Karim Wade bàyyiwul Sonko mu dem candidat kan lay àndal élection présidentielle man ah, dama lay ah, laaj rek man léegi man maa lay delloo question boobu moo tax nag mëni la dañu toll dañu toll foo xam ni xam nga politique day dox dañu toll foo xam ni Macky Sall dafa am intérêt bàyyi candidat yi ñu dem élection moom de toute façon moom bokkul ci élection yii di ñëw na wut ku ko kuy kuy demal pour Benno Poulain su naree dem élection mu ñëw jàkkaarloog ñett ñooñu ma wax mooy Karim Wade. mais nag dafa mel ni yaa ngi xeeb yeneen yeneen personnalité yi nekk ci ci kuje gi tamit awaaw parce que ah. tamit euh, analyse bi nga def ci mbir mi dafa gàtt trop ñetti nit nga ma limal ci opposition. non non non je veux dire ñetti ñooñu ñetti ñooñu moom ay candidat lañu. man jàpp naa loolu. mais am na ñeneen ñu ko mën a doon mm, aussi. waaw ñeneen mën nañ ko doon mais Macky xanaa kay doo dem nag avec les trois forces les les les trois forces de l' opposition ak pur suñ ci boolee pur. Mm-hmm. tey mën nañu wax les quatre force de l' opposition. Mm-hmm. PDS la. Mm-hmm. Euh, kii Khalifa Sall taxawu Sénégal euh, Pastef ak PUR waaw léegi soo demee xanaa kay sur le plan démocratique xanaa kay Macky du dem élection jël tànn kenn ci ci APR wala ci Benno Bokk Yaakaar mu nekk candidat ba pare ñeneen formation yi seen candidat mu ne du ñu dem loolu pour man dañu toll foo xam ni mag yi mënatu ko. mën nga def leen à un moment donné mu jàll mais mënatoo ko def fu ñu toll ni mm-hmm. mag yi day force day ubbi géewu politique bi bàyyi candidat yi ñu ñëw bokk. mooy mooy li ngeen bëgg mais awa bu ñu seetloo langue non loolu du lu ñu bëgg de. bu ñu force daf koy def bu ñu seetloo parce que sinon dama xamul. Mm-hmm. kan lay jàkkaarloo. mais bu ñu analyser bu baax a baax langue politique bi def benn cartographie bu ndaw entre guillemets. Mm-hmm. état bi ñu toll dafa mel ni PDS problème. lu mhm. tax ma wax ko par exemple yéen am ngeen problème retour boobu ñu doon wax te amagoo leen date bu ngeen mën a jox sénégalais ñu ko jàpp ci lu wóor ni Karim dina ñib si fii nii mhm. beneen bi question amnistie la mhm. te loolu defe naa du Macky moo koy def am na fu ñu ko war a jaaral bu ñu amnistie nit ay fee la ñuy amnistie te jamono ji ñoom ñoo am majorité donte majorité précaire la est-ce que ëppoo leen problème loolu nan ko man man jàppuma dañu am man jàppuma jàppuma bennoo moo am ëpp man ba majorité bi. ah opposition yi yoru ko de. Eh, ñoom yorewuñ ko de. te bu ñu demee de manière. yore wuñ ko de même le même le fait que Pape Diop dem ànd ak ñoom. Mhm. ma ni la pour man. Mhm. suñu demee assemblée nationale surprise mën na fa génn. Macky yorewul euh, yorewul euh, majorité bi parce que dafa nekk une année moo ko desee au tête à la tête du Sénégal mhm. te ñi mu àndal war nañu xool seen avenir politique. xam ni que sénégalais yi ñu ngi leen di seetaan te ils sont devant l'histoire am na loo xam ni man dama xalaat ni député wu Benno Bokk Yaakaar yi sax ñoom seen bopp am na loo xam ni seen xel du leen mayeti ñu def yenn yi xaw ma su nekkee yaa ngi comprendre li ma bëgg a wax. maa comprendre bu baax mais ban liggéey mooy am jamono ji au sein de votre parti pour le retour de Karim Wade parce que nag lëndëm na ci xelu Sénégalais yi. waaw xam nga xam nga retour Karim Wade. parce que man li ma bëggoona euh, que les médias ñu interpeller le président de la république comment ñu ne ko mhm. kañ lay Karim di ñibbisi ñu ne ko lan moo téye Karim foofu yéen xam ñun suñu bopp suñ la ci waxee luñ suñ lu ñu xam rek mooy c'est un exil forcé mhm. mais dama bëgg loolu man dama ñaan jour bi am président mhm. di jàkkaarloo ak journaliste du yomb parce que gis naa ni souvent du ñëw loog journaliste sénégalais yi mais su ko su ko defoon. Mhm. man damay ñaan journaliste yi ñu laaj ko lan moo téye Karim Wade Qatar. Mhm. ak lan moo génne Karim Wade Qatar. ak li tere. Karim Wade nekk candidat. mais yéen tamit pendant pendant tout ce temps là nga baal ma war ngeen mën a avancer ci information yi ngeen di jox seen. non loolu information lu mooy exil forcé exil forcé depuis information bi. war ngeen mën a ci Macky lay jógee. information boobu ci Macky la war a jóge parce que macki moo fi génne Karim moom moo ko génne kat moo ko génne Sénégal donc information boobu Macky moo ko war a wax sénégalais yi parce que on est à quelle année en deux ñuy exiler ay nit defe naa ci monde entier Sénégal rek la amee loolu Macky sénégalais yi war nañ ko ci interpeller wax ko Karim doomu Sénégal la papaam def na fi loo xam ni papa kenn mësu ko fi def kon nañu indiwaat nañu arrêté l'exil de cette de ce du candidat du PDS. est-ce bu ñu ñemee ci interpellé Macky seen candidat dina ñëpp si bu dee loolu rek mooy solution. du journaliste yi dem na ak Macky déggoo ma de ma di la Macky Sall. 2024. Mm-hmm. Mm-hmm. dafa war a bàyyi day bàyyi Karim Wade. Mm-hmm. day bàyyi ñu mu téye ñëpp. def ko moom ci boppam wax na ko. moom mu demul ci média étranger yi mu ne day xoolaat dana xool nan lay def. pour amnistier Karim du moom ci boppam moo ko wax. France 24 RFI waaw xam nga ku dem ba wax loolu. Hmm. ñun ñu ne ko amnistie ñun laajtewuñu wuñu amnistie parce que waruñu amnistier Karim parce que suñu amnistier Karim day am ay fait. Hmm. yu ñuy yu ñuy amnistier suñu hmm. amnistier cette période là. ñu ne ko ñun lu ñu bëgg. mooy jëluñu alal sénégalais yi. comme ni ko CREI yi wax. amuñu kenn on n'est pas on est on n'a pas fait de corruption. on n'a pas détourné. le deniers publique parce que loolu la CREI yi wax. Mhm. kon nañu defaraatal beneen procès bu jaar yoon. Mhm. procès bu équitable. Mhm. procès boo xam ni euh, sénégalais yi ak monde entier mën nañ ko accepter. ba pare Nations Unies am na lu mu wax ab euh, Macky Sall te ñu bëri dañ koy fàtte. mooy indemnisation Karim Wade. Karim Wade Macky Sall daf ko war a indemniser. parce que daf ko tëj trois ans exile ko. arbitrairement. loolu c'est les ce sont les Nations Unies les commis la commission des Nations Unies des droits de l'homme moo ko teg le pouvoir en place. donc loolu déjà dañ ko war a lijjanti. mais balaa boobu xam naa ni Macky Sall euh, jël na expérience dans ce dossier là. gën na ci am recul. gën na ci am raison. Mhm. te xam nga tout toujours au départ. Euh, émotion wala benn situation daf lay defloo lenn. Mm-hmm. mais dañu yegg ci niveau boo xam ne léegi raison bi moo ñëwaat. Mm-hmm. mu ne dafay amnistier Karim kenn wax waxloo ko ko. Mm-hmm. mooy xam na ni que Karim far force mu bokk. bëgg ngeen lijjante loolu mais am na leneen aussi lu ngeen war a lijjante au sein du moom fu mu nekk nii moom moo am problème nan lay def. ba Karim bokk ci élection yi. loolu mooy li nga jàpp mais am na beneen problème bu ngeen war a régler au sein de mooy défection ñu gis. mu nekk ay yoo xam ne du n'importe quelle personne. ci ci seen entité boobu mooy le PDS départ ma yoro yoroon porte parole bi Cheikh Mbacké Bara Dolly Toussaint Manga et tout ça te gis nañ ñenn ci ñoom bu ñu génnee daanaka dañuy indexé seen personne morale ki nga xamante ne moom mooy moo ngeen tànn mooy seen candidat muy Karim Wade. Mhm. loolu tamit mënul jouer ci conscience su sénégalais ci ku ngeen bëgg mu ñëpp.